teewaay bii bi ngeen teew nag wane na ni boomi Pastef ngeen Pastef bii ngeen wane nag génn ñu am gan gu mag gan gu mat gan muy sunu xarit sunu mag sëriñ Xaasim Mbàkke kon mouvement bi tey bu ñu suñu Xaasim seetsee di ñuy defaan nam daan def indi ñu ay financement yàgg na koo def da ngeen xam ni du fii rek la koy def bu ñu jógee fii am na feneen fu ñuy jàll am na feneen fu ñuy jàllaat noonu lañ koy toppee ba mu def une semaine kon mouvement bi soo Tawfekh àndu liggéey Mbàkke Bawol dañoo taxaw fii ci koñ bi ngir liggéey koñ bi waaye sëriñ Xaasim nag waa koñ bii dañoo yóbbante ndax fii mooy Mbàkke Bawol Mbàkke nag dafa mel ni sëñ Xaasim dafa am lu bari loo xam ne dafay manqué ndaw ñi am na lu ñu manqué jigéen ñi am na lu ñu manqué te jigéen ñi moom képp ku leen di jàppale wutal leen financement ñu liggéey ndax jigéen ñi kat bëgg nañ ko leen jàppale si ay machine bëgg nañ ko leen jàppale ci seeni bëgg-bëgg yaatu na te waxoon nañ la ko kon boo fi dikkee dañ la ko wax nga taxaw si mën nañu see jàppale. ndaw ñii dañoo bëgg liggéey jigéen ñi bëgg nañ liggéey waaye dëkk bii tamit bëgg nañ fi mu am xar kanam bu soppiku loolu nag nañ ni. jege nga ko dañ la ko wax nga yeggale ko ndax fii si Mbàkke kat liñ boobu ba léegi seetlu nañ dañoo fàtte si lu bëree bëree bari yow nag yaa ngi xas sa tànk tubay ngir lépp loo mën a am indi ko Mbàkke kon lépp lu mu am ni Tuubaa Mbàkke laa ko indi kon ñun nag nañ xam ni nañ ko teg suñu bët bàyyi ko xel fas yéene koo jàppale bu mu am li mu bëgg parce que bu amee li mu bëgg ñun dañu am li mu bëgg ndax mi ngi koy wane ndax nekku fi waxe kase bëri waa na ñoo xam ni dañuy ñëw waxe waxe kase duñu fa bàyyi dara te saa su ñëwee rek day indi day indi moom ba noppi door a wax kon suñ xaasim nañ taxaw jàppale ko. sëñ xaas ñu ngi lay xamal ne la ñun jigéeni koñ bii tey ba ëllëg yow lañuy àndat ndax saa yoo fi ñëwee ak li nga ñuy defal ak li nga ñuy waxal waxaloo ñu waxi kese rek daal dem Touba déedéet saa yoo ñëwee rek ak li nga ñuy bàyyil ci kaw taabal ji. miin nañ ko ñun jigéen ñii day takku nañ fas yéene laa jàppale ca kaw ca kanam rek. sëñ daam mii dañoo kontaan ci moom ndax dañoo fekk ñu toog mu ñëw li may wax soxna Fari doo na ma ci seede xale yëpp ñëw mu leen wàcc leen toog ci suuf ma waxtaan ak yéen ñu ñëw mu leen damaa am sama nit ku ma musul nax koo xamante ni maa moom jëflante bi rafet na lool ma bëgg ngeen xamante baadaam moo ngi ne duma bàyyi ma fen balaa wax maay wax moo naa ma jaañ waxal. man ko sëñ bi mu ne ma man ko dañoo jëflanteeg ñu bari te politicien moom man mënu ma koo déglu mënu ma déedéet du ñëpp a yam bu ñëpp a yamoon am ñu gedd seen cër. ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon diggé bi kañ la mu ma dina fi ñëw bi mu ñëwee maa jëloon parole wax moom la mu waxoon ni dindiwu ko ba léegi bàyyi daam fekk na ma ñaaroon ma toog mu ne ma sëñ bi amuti caaxaan. man ne ko yaa ko wax waxal sa bopp mu ne waaw ma ne ko kon bul découragé yàgg la wax ak say booy liñ bëgg nga dimbalee ñu ko nag du lenn lu mooy jàppal ñu sëñ bi. amuñ ko dul moom ndax bu toon ak moom duñ la xam Mbacke Balla mi damaa kontaan ci moom. ñëw gi nag dara warulu ko mooy seen taxawaay ak seen pësteef ngeen nekk doomu dëkk bi rawatina Touba gi ngeen xam ne moom lañu am rawatina Mbacke gi ngeen xam ne yéen a fi nekk dëkk fi te dëkkin wi dëkkin bu rafet. ngeen doon benn say boo xam ne da ngeen doon mbooloo moo xam ne yéen a ngi tënku nekk seen quartier di liggéey liggéey bu rafet. ba yàlla dogalee nag ñu it ñu xam ne dañuy doomi dëkk bi lañ yàlla boole ñu si njabootu Serigne Touba ñu nekk si dëkk bi nga xam ne lépp luñ mënta yor wala lépp loo xam ne kilifa gi nga xam ne muy président Macky Sall def na ko fii si dëkk bi lépp loo xam ne da koy jàppale Touba ñun lu luñ si mën a taxaw suñu suñ kémtulaay kàttan na nañ fexe ba yéen ñi nga xam ne yéen lañ seet fii waa Mbàkke ngeen jot si seen cër ndax bañ demee bañ bañ dem bañ jógee Ndakaaru ñëw ba fii si dëkk bi muy Touba yàlla daa dogal ne lépp loo xam ne dañ kaa war a joxe fii si dëkk bi rawatina sancaan yi rawatina jigéen ñi ak mbootaay yi damaa xam ne yàgg naa ñëw si yéen yàgg leen a seet si ngeen doon ñoo xam ne benn say ngeen te ànd ak pësteef ànd ak takku nekk seen koñ di liggéey ñu fas yéene ànd ak yéen jàppale leen suñu kéemtalaay kàttan te jàppale bi nag dara génn si président Macky Sall ndax ñun moom lañu àndal moom la ñuy jàppale te nëbbatuwuñ si làqatuñ si loolu la yàlla dogal bu fekkee nag dañoo ñëw fii suñu dërëm wala suñu ñaar dërëm ñu yëkkati ko jox leen ko lépp rek mooy ngeen dugalaat ko seen biir boolewaat ko seen biir yéen ñëpp ngeen mën see ñu rawatina jigéen ñi loolu moo tax ñuy sonn guddi ak bëccëg te lépp loo xam ne dañ kaa yor fas yéene ñu yéen ñi ngeen xam ne yéen a fi nekkoon te ngeen nekk Mbàkke na ngeen si jot seen wàll te ne na ñëw ba si yéen ñu jox leen ñëw gi ma fi ñëw nag dama fee ànd ak ñoo xam ne ñoom it seen taxawaay. ak mm. seen yéene mooy jàppale président Macky Sall. la mooy ñii ngeen gis ma ànd ak ñoom. Ah. minicar mu ngi fi ak sëñ Mouhamed Silla ak sëñ Saliou Diakhaté ñoom it seen taxawaay ak seen yéene mooy lii may def noonu la ñuy def rek. wër Touba gépp rawana na sëñcaan yi fexe ba jàppale leen. si jàppale goo xam ne lépp ja euh, dafa jóge si kilifa gi muy président Macky Sall ngir jigéen ñi fi nekk ak jeunes yi ñëpp gis seen bopp. xam ne président de def na lu rëy Touba ku ko waxut da ngaa gëmm say bët nangu woo kaa xool wante li mu fi def Senghor ba Ablaye Wade mii ma wut kenn defu ko fii si dëkk bii ñu am muy Touba li ma siy jox exemple mooy yéen jigéen ñi rek ilaa Touba bi moom waxatuma ko ndax tey boo jógee dakaar bëgg a añ ci Touba daanaka doo taxaw si yoon wi nga ñëw hôpital bi barki démb rek ñoo ngi fa dem benn la si Afrique loolu yéen jigéen ñi yéen a ko moom président Macky Sall defal leen war ngeen a tax na ñiy jóg di yàq ak di kàcc ak di fen mu yenn opposition yi naan président Macky Sall defu dara Touba la ñuy wax dara du si seen font yi xam ne ñoo bokk ñoom dëkk bi te li fi président Macky Sall def kenn gëmul say bët dañoo xippi suñuy bët xool ko te fas yéene nañoo ànd ak moom di leen ko ñaan yéen mbooloo mii ñu ànd doon benn say si lii ñu jëm muy élection législative yi ñu jël suñuy carte jox ko président Macky Sall te xam nañ ne yéene mooy Touba gi bëggul mu des ginnaaw si yeneen dëkk yi te ñun xam nañ ko buñ ko waxee looloo waral suñu yëkkati yëkkatiku tey di nekk biir Touba di wër sancaan yi ak jeunes yi ak mag ñi ak femmes yi taxawu leen jàppale leen xam ne le président Macky Sall Touba dakaa ñor Touba dakaa bàyyi xel te loolu ñun war nañ see xam dara ndax kii fi nekkal tey Serigne Touba jox na ko war ma def ko bàyyi def ko sëriñ ba sëriñ bi bu ko waxee dara midi balaa deux heures président Macky Sall faj loolu jàppale ko ci dëkk bi kon nag ñun bu ñu doonee ay taalibe yaakaar Serigne Touba sëñ Mountakha di Serigne Touba jàpp président Macky Sall suñu kàtt waruñu kaa jooyale président Macky Sall dañ kaa wooteel bu fekkee ay gor lañ te fekkee dugg nañ ci taalibe bi Serigne Touba. loolu laa leen di soññ di leen wax nag ne lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci kilifa bi mu war a jëm ci Touba yéen waa Mbacke ne lañ leen ñëw jox leen ko. ngir ngeen defaat ko seen biir liggéey doon benn doon benn say ndax loolu mooy tax ngeen mën a développé loolu mooy tax ngeen mën a jàppale seen jëkkër yi si biir kër yi. ñu ngi sant nag bu baax sëriñ daam ak Serigne Fallou Mbacké ndax ñoom it samay rakk lañ wante gis nañ seen taxawaay ak niñ ànd ak yéen doon seen kilifa uuf leen ngeen doon benn say topp si ginnaaw Serigne Fallou ak sëriñ daam te ñoom am na fu ñu toll si man te lépp lu may dugal biir Touba nanaa leen woo wax leen ne leen ko Touba am na foo xam ne muy Mbàkke nanaa fa dem jox leen ndimbal ngir li nga xam ne dañ faa nekk ñoom mbooloo bi ñu see taxaw loolu moo doonoon sama tànk ma ànd ak délégation bi ma leen di wax mbooloo mi ñu ngi jëm si lu am solo muy législatif lii nag tàmbali la wante dañoo fas yéene ànd ak yéen dañoo fas yéene ànd ak yéen si campagne bi ba campagne bi jeex ngir président Macky Sall am ndam ñi ngi sant soxna Aram mi nga xam ne mooy jigéen yi ak soxna Oumy Fall moom it seen taxawaay ngeen ànd daal di nekk benn say muy sëñ soxna Oumy Fall mi nga xam ne mooy doomu Cheikh Fall Baye Góor ak soxna Aram géey gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ ñu ngeen di taxawoo président Macky Sall fii kon ñu ngi ñaan lii ñu jëm di leen ko ñaan jigéen ñi di leen ko ñaan yéen jeunes Jakarta yi naa ngi leen di fas yéene jàppale li ngeen wax dégg naa ko ngeen doon benn say ba lii ñu jëm ñu jox président Macky Sall majorité bu mat sëkk assemblée loolu moo doon si yitte loolu moo tax ñu ñëw fii di leen jàppale di leen taxawu te incha allahu rabbi ñii nga xam ne dañ fee nekk di yàq der fas wuñ leen see bàyyi te ñoom dañuy sos dañuy kàcc rek dara du si dëgg mooy opposition bi fas yéene ñoo ànd ak président jàppale ko wane liggéeyam wane jëfam biir Touba ba yàlla defal ko majorité incha allah rabbi assemblée looloo doon suñu. yow bu tëddee dina nelaw fii ndax di ñëw sax di ñu may xaalis dëgg la waaye am na sax lu ñu gën a gënal xaalis mooy suñu koñ bii dafa lëndëm këris benn làmp amu fi. teg leen loolu. ñu bëgg ko ñu dimbali leeralal ñu suñu koñ bii naan ñi defal ñu fi ay robinet defal ñu fi lépp dara bañ fee manqué maanaam làmp yi nag moom danoo ñor. ndax làmp yi li nu wër lépp am nay làmp waaye suñu biir koñ yii daa lëndëm këris kon sëñ bi loolu bokk na ci li nga xamante ne nii ñu ngi la koy diis ndax nga fajal ñu ko li ci des mooy lu ñu liggéeye lu ñu jàpp di ko liggéeyee am na solo lool ndax nee naa la fii daaw xollim gerte moo am fii ci koñ bi ak ràbbu ay sër te bu ñu sañoon danañ am lu ñu jàpp di ko liggéeyee suñu koñ bi développé jëm ca kanam waa Guédé yaakaar naa ne sëñ xaas mi du leen nax waa yaakaar naa yéen it du ngeen ko nax ndax li président soxla rek moom la soxla. bëgg-bëgg président rek moo ko tax a jóg di président Macky Sall yaakaar naa président Macky Sall bu amoon fukki ndaw yu mel ni sëñ xaas mi kon ba tey fii nooy na nepp moom du waxantu. day jëf ndax taalibay Serigne Touba yii di taalibay maamam ñoo ko tax a jóg bëgg-bëgg maamam ci la teg tànkam bu sañoon ñëppay am ñëppay siggi kon loolu moo ko tax a jóg lëkkaloo ak président de la Sénégal di président Macky Sall ndax jëf-jëf ji nga xam ne jëf na ko fii ci département bi ñor na ko dugg na ko kon moo ko tax a jóg. looloo ko pikiir ba tax mu jóg ñëw tàllal loxo. ñu ngi nuyu koñ bi nga xam ne moom la ñëw muy koñu Serigne Cheikhouna muy Guédé fii nag yaakaar naa ne soxna yi ñu ngi leen di nuyu bu baax li leen sant dina gërëm ndax xam naa ne eh, duma fi gan. miin ngeen ma. président mi fi yàlla teg jamonoy Senghor. ba Ablaye Wade ba mu wut Ablaye Wade lim fi def si dëkk bi kuy waxal yàlla rek xam ne président Macky Sall lim fi def kenn def li may joxe exemple mooy nañ bàyyi yàqkat yi nga xam ne dañ leen di dégg te la ñuy wax seen intérêt personnel moo tax ñuy wax ngir jabalu seen nit ñi ak askanu Touba naa leen président Macky Sall da leen a woon ginnaaw deful leen dara loolu c'est foo lu tax ma ne c'est foo mooy ñun dëkk bi lañ am te ku Moussa na jógee Ndakaaru di jëm si Touba. da yenn si yoon bi soog ak si Touba te gis ngeen Ila Touba bi benn président defu ko ku dul président Macky Sall waxuñu si dara Touba le président Macky Sall def hôpital boo xam ne Afrique ndax man mii di wax ak yéen dem naa Europe dem naa Afrique amul fenn fu ma demul tegul sama tànk bi Afrique wante hôpital bii ma gis tey président Macky Sall defale leen ko jamonoy màggal gi ñu organiser ko mu ñëw ibbi hôpital bi démb lañ commencé médecins yi commencé nekk fa installé ngir liggéeyal waa Touba. kon léegi yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy soxna yéen ñi nga xam ne yéenay jigéen loolu rek benn la si Afrique président Macky Sall raison yëpp mu daal di ñëw ba si Touba gi def ko fi ñun buñ doonee as gor ànd ak suñuy soxna. war na ñoo xam ne président Macky Sall yéene na dëkk bi yéene na jigéen ñi yéene na xale yu jigéen ñi ak jeunes yi ak ñun ñi nga xam ne ñooy borom kër yi te daan jéggaane suñuy soxna bu ñu waree mucc wala bu ñu feebaree dem di dugutiwaat feneen kon hôpital bi rek doy na firnde yéen jigéen ñi ngeen xam ne ni ñu coow ak kiy jëf mënuñoo bokk te loolu gis ngeen ko teg ngeen seen bët la sa dolli mooy assainissement wu Touba gaa lépp matut wante milliards yi fi président Macky Sall def waxuma ko de ki jiite kaddu Serigne Mountakha muy Cheikh Bass Abdou Khadir moo taxaw ne président Macky Sall président yi fi ñëw yëpp lim def fii si assainissement si milliard amul benn président bu ko def man waxuma ko Cheikh Bass a ko wax. te moo yor kàddu sëriñ bi la ma say mooy yoon yi yi nga gis tëli yu bëri ñu ngi ñëw wante yoon yu mag yëpp président Macky Sall def na ko ay tëli te kenn defu ko làmp yi leeral na ko fii dëkk bi fii ngeen wax nag xëy na dafay joti si dégg nañ seen wax muy courant bi. président Macky Sall sëñ Xaasim mi nga xam ne nekk naa yow di la jàppale ngir législatif yi nga am si ndam ñoo ngi lay wax fii ñu nekk muy Guédé Bousso ñëw nañ fi géeg nañ jigéen ñi seen taxawaay ak seen pësteef nee nañ leen nag ngeen fës yéene jàppale président Macky Sall si lii ñu jëm muy législative yi fii Touba président Macky Sall am fi majorité boo xam ne ba mu doonee président de la ba tey amu ko te loolu lañuy ñuy liggéey guddi loolu la ñuy liggéey bëccëg ñu leen koy ñaan sax soxna. lii ñu indi nag di leen ko jàppale daa jëmaat seen biir yéen ngeen organiser ko mu duggaat seen biir ndax dañoo tàmbali rek wante ñoo ngi ak yéen ba élection yi jeex loolu dama leen koy wax de dañoo tàmbali ak yéen wante fas yéene nañu ànd ak yéen. ba keroog ñu naan vive cinq heures pile wala six heures bu ñu tëjee bunt yi fii sene Touba gi ñu ne vive benn bokk yaakaar gagné na législative yi te dañ leen di jàppale te looloo ñu tax a jóg bi leen wax nag soxna yi bu leen kenn fëpp bu leen kenn na opposition bi nekk di leen tiital naan sëriñ bi nee na sëriñ bi nangam man maa leen gën a jege sëriñ bi fopp ndax doomu sëriñ bi laa la ñuy tuumaal sëriñ bi naan wax na wax na dara président mu bañ nangam wax na ko président la ñuy wax lépp ay kàcc la ay inventé la dara du si dëgg may opposition bi keroog bañ toogee palais de la république loolu la njëkk a wax Touba dafa am fu ma ko teg ngir sëñ Mountakha kon nag yéen da ngeen kaa war a xam ndax ñun kenn rek lañ yaakaar muy sëñ Touba ak Cheikh Mamadou taxa su wanoon ginnaaw président fu laalu ko duñu won dañuy won ginnaaw président Macky Sall wante gis nañ sëriñ bi fu mu tuddee ba élection yi jàll képp ku yow Touba war nga kaa xam sëriñ Mountakha lu mu wax dane keroog ba bis bi amee ñuy def élection ak li ma président Macky Sall defal kenn doyu ma si damaa dem ba si sëriñ Touba ma ñaan ko sëñ Touba defal ma ko waaye ñun buñ doonee ay gor gëm sëñ Touba tam dëgg si ñun nañ jàpp ki fi nekk fi président la république ñu bañ kaa moyen la suñu carte ndax buñ ko defalee joxee suñu mo carte électeurs yi jox ko majorité assemblée président li mu wax mooy jigéenu Touba mooy priorité boo xam di leen di jàppale si financement yi si si si si si soxla yi nga xam ne am ngeen ko te ñàkk bu duggee si nopp mu taxawu leen. 500000. Ah, nga fee ñëwoon waxanteeg ñun ay kàddu defanteeg ñun ay kàddu te la nga defoon it Mbàkke gis nañ ko. ndax yaa ngi ci booba léegi yaa ngi ci ñi da la sant nag te di la gërëm te di la ñaanal yàlla liñ la waxoon rek moom lañ lay wax ñun ay jigéen lañ ñu nekk fii ci olom gi di bëgg lu baax di bëgg a liggéey bëgg a jàppale suñu borom kër ak suñu njaboot suñ sonoon suñ njaboot yi duñ dem ci dën bënn yi dañuy toog fii liggéey gis nga ko xale yaa ngi nii taxaw war a am ay xëy yooyu yëpp ñu ngi koy sàkku ci yow kon nag Mbacke ñu ngi lay tàllal say loxo. li ñu waxoon it ñoo ngi koy gis ndax bi nga ñëwee wax ñi li ñu waxoon ba tey it waat nga bëgg a doxalaat li ñu waxoon kon loo ñu wax rek ñun Mbacke gëm nañ ne loolee dañ dinañ ko gis. dinañ la jàppale nag bu baax a baax. di wax na yéen waa olom gi soxna maam Faty li ñu ñor. mooy ñu ngi jëm si lu am solo muy législatif yi législatif yi nag dafa doon loo xam ne dafa am solo muy penc ndaw réew yi ñoo xam ne dañ leen faa war a nekkal am loo xam ne moom la président Macky Sall sumu war ko àggale si Sénégal rawatina fii nga xam ne moom la ñu yebal muy Touba ñun nag amuñu fenn gisuñu fenn fii lañ am ndax fii lañu yàlla boole muy Touba lépp lu président Macky Sall di ko def ci réew mi ñun na nañ fexe ba na ko waa tuubaa nga bàyyi leen xel nga gersu leen te yaakaar naa ñun na ma ko waxee woon rek buñ doonee ay taalibe doon ay gor war nañoo xam ne président Macky Sall jamono yi Senghor ba Ablaye Wade mi lii mu def Touba amul kenn ko ko fi def ma joxewaat exemple mooy Ila Touba amoon na président yu am yéene yi wante ñun boo jegee Ndakaaru 7 ci suba balaa 8 heures 30 na na fekk si nga agsi fii sa kër noppaliku lu ko may muy son excellence monsieur président Macky liggéeyam ak taxawaayam jox war may dëkk gi moo tax mu def Ila Touba googu ndax sëñ Cheikh mi du ma bàyyi ma wax lu nekkut démb lañ jokkoo mu ne ma maa ngi Dakar. wante balaa dara xew na naa fekk si na naa na naa ndékki si Dakar moom soxna moom ak soxna see te noonu lañ ko defee kon loolu si président Macky Sall moo la ko yombalal. nag am na sama benn mbokk boo xam ne benn booy la boo xam ne maa ngi koy dégg barki démb mu ngi wax naan sëñ taxaa bu fekkee suñuy liste jàllut élection du am si rek mën ne ko c'est faux li muy wax du dëgg ndax bu dee doomu dëkk bi ñoo gën doon. bu dee dëkk bi ñoo la gën a xam dëkk bi booy politique nga politique mooy Moodu Mbacke Cheikh du Mbacke Bari Doli lay wax du ma du ma man ragaluma defal très attention booy wax nga génn si sëriñ bi si mbirum politique sëriñ bi politiqueul lu lislaam amu si defar amu si yàq yow nag bu fekkee politique moo tax ngay wàcc ci terrain bi di liggéey nañ jàmmaarloo man maa la ko wax nañ jàmmaarloo lu la nekk ci terrain ndax man amu lu may tiit wante nag dañoo bëgg sëriñ bi ñu bàyyee ko ak lislaam ji ak diine ji ñun ku ñu xam ne moom la ñuy àndal di ko jàppale ñu xool askan wi dem waxtaan ak ñoom wax leen suñu candidat lim fi def ak lim fi jëf te yaakaar naa yow mënoo wax sa benn candidat ak ñi nga àndal liñ jëf fii si dëkk bi loo xam ne nit ñi teg nañ seen bët. jàppale président Macky Sall muy lii ñu dën man muy législatif yi yàlla defal ko ndam ndax loolu man mooy suñu tànk mooy suñu yéene te loolu la ñuy fas yéene ànd ak yéen di ko dox si dëkk bi ba président Macky Sall am majorité boo xam ne da koy ànd ak sénégalais rawatina waa Touba ñu xam ne jox nañ ko majorité bu mat sëkk. te loolu yéen soxna si wóolu nañ leen si mooy ñu ko waxee yéen waa alam gi ndax xam nañ seen takkuwaay ak seen taxaw ba ma fi ñëwee da woon dangeen defar ab CIE ma koy wan journaliste yi eh, mu ngi nii. waaw olam gi ba ma fi njëkkee ñëw dama leen a wax ne da ngeen di taxaw defar loo xam ne ëllëg bu ko kilifa gi gisee muy son excellence monsieur président lépp lu mu leen di financé day xam ne am na këyit yu leer këyit yaa ngi nii nag moom ma koy wax mu ngi nii seen yi gis naa ko defar ngeen ko bëgg ngeen seen excellence monsieur président Macky Sall ni muy jàppalee femmes yi di leen taxaw yéen waa olom gi mu taxawu leen jàppale leen loolu dégg naa seen wax danaa ko àggale kilifa bi muy président Macky Sall indi nañ leen nag 500000 yoo xam ne yéen olom gi yéen a ko moom. sëriñ bi ne jox na leen 500000. maam Fatou Seck. ca kaw ca kanam. ca kaw ca kanam. ca kaw ca